mu ngay waxtaan ak papam mhm. fekk xale bu jigéen la gis mhm. ñoo bokk classe di jàng mu daal ko koy wax ne ko mhm. boobu dem nañ bédde ba muy buggante mu daal di a tax xale bu jigéen bàyyi ne ko déedéet doo ko du jullit damay bañ mu jël la yóbbu mu def ay téere yu bëri téere yoo xamante ne téere lislaam la jox ko ndaw si ko jàngal pour ndaw si mën a ndaw si di jàng di jàng di jàng di jàng ba benn mu woo ne ko nag tuub naa tey ci euh, ci xibaar bi rek dem naa ci jumaa ja tuub naa waa ji dafa kontaan ba daal fa ngir ne foog ne am na jabar moom ndaw si woote woote woote déggatu mu daal di si ñoom comme ñooy fekk ko fa ba mu toogee ñun ñoom ñaar di waxtaan mu ne ko tuub naa de dégg la waaye nag du ma mu ne ko lu tax doo ma te lii moo taxoon ma ne la nga tuub mu ne ko parce que ni ma jàng ci téere yi ni hmm. ma ko jàngee hmm. ne noonu la julli di mel kon yow doo jullit parce que melu noonu ni julli di mel hmm. te ni ma jàng ci téere yi nga demal naan pour nekk jullit man yow melu noonu noonu kon man man waruma seet yow comme dinaa wax ne manoo seet man parce que man du ma jullit kon man bi ma demee ba jàng jullit dem tuub nekk jullit man gis naa ne yow melu noonu noo xamante ne man war naa seet yow parce que nekkul jullit kon moo tax bu ñu la tuddee ci baax fexe na nga ummatan wasatan. Hmm. yàlla wax ko ba ñëpp dégg. kon hmm. fexe ba mel noonu. li tax nag mooy li takunu shuhada. Hmm. ngir ngeen mën a doon ay seede. ala naas ala naas bi maanaam ànd ak yàlla contre ñi nga xamante ne ñoom ñoo felloo woon yonente ya. alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis ne yéen nekk ummatul wasat. yàlla may na leen ñett yoo xamante ne may ko lu dul yonente yonent rek laa ko yàlla may ku dul yonent yàlla may ko borom bi tabaraka wa taala bu yónni woon yonente daf koy wax ne may naa la ñaan may naa la ñaan loo ma ñaan ñaan boobu bu ma ko ñaanee loo ma ñaanee dinaa ko defal yàlla wàccee ci yéen ne fa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribu ujibu daawata daa ida daani yàlla nee na Muhammad du ngeen ma ñaaneel ma nangu leen loolu yonente la ko doon wax te mel la ko doon may yéen yàlla may na leen loolu kon lu ñuy ñaan ko mu ne ñaareel ba yàlla bu ñeen yoon yonente dafay wax naan laysa aleykum fi diini min xaraj moo tax Moussa rayoon na Balaam wala de waaye laysa aleyhi diini min xaraj mu ne ko kaay ma yónni la kaay dem loolu amul problème jéggal naa ko خير محمد دم ليس عليه في الدين من حق ليس عليها في الدين من حاجه وكرا دينا دي دوما لي تي لو خامي داني اتان لا ولا داني كي فانا لو تي مان لا تي لا تي سوك جامو يالا لي نمان نعم. موي سديدو وقاربو سديدو وقاربو فان لم نبدلا ارضا قطا ولا ذهبا لول يالا باي داني نعم. كو تي تاخ نيتل ما موي يالا دا فا دون جيل يالا yéen laa wóolu kaay leen ngeen seetal ma kon ñett yooyu sama xeet rek la ko yàlla wax ay min xasaa'is ummati ci barkeel na alayhi salaatu wasalaam mm. kon li takunu ngir ngeen mën a nekk bu ñu qiyaamati jotee yàlla dafay wax nit ñi ne yéen ñi yéen ñi yéen a nekk yéefar ndax yéen ñi moo ci seen kaw alam yaatikum nadiru ndax yéen ci seen kaw mm. ñu dem di war ci yàlla ne ñun gis ñu benn nadir maa jaaxal def waat ko ci yàlla. ne amul kenn ku ñëw wax ñu ne lii nga bëgg lii nga bari. te def bi mu ngi xaar amul. yàlla daal di indi Seydina Nuuh ne ko yéen ci gaay yi. ne ah kay yëgg naa ci ñoom wax naa leen ko gaay yi nga ko déedéet waxuñu dëgg. masu la ñëw ci ñun masuñu wax daal. xamuñ ci moom dara masuñu wax dara ñun daal dañ doon dundal nii rek. mu ko Seydina Ibrahima naka noonu képp ku mu woo ci yonent yi rek. ñamu dajel dal di koy xello yalla dal ci ummatu muhammad ñu taxaw fekk fu ñu felle wo yenent rek ñom ummatu muhammad ni akay ñewon naka parce que yalla wax na li wax na li wax na li ci alquran ñun lool ko nek suñu avantage moy ñun yalla wax li xam ñun def ko wax te danañ ko wax ne ku ñu dégg dafay ñëw kon ñun yalla dafa wax ak ñun motax yow ma qiyamata ñu man fa am doole di ci kanam yalla Seydina Nuuhin dem demuloon ci kayam wa qaala Nuuhun Seydina Nuuhin waxu inna arsalnaa Nuuhan ilaa qawmihi an anzir qawmah ñun seede nañ ko wala seede wuñ ko seede nañ ko suñu seede ba nekkul ne dañ ko fekkee waaw yàlla ñu ko wax lan moo tax bu dee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon seede ñaari seede moom kenn bu seede na ñaari seede parce que yonent bi dafa masoon a jënd waxante ba ñu waxtaanee te dégg ko yéen fi ne ko ñu dem ca kër ga ba jox la njëg ne ko indil gëlëm bi ñu dem ñu dem ñu ñëw ba ci digg yoon yéen fi am ku mu taxawal di wax daal di fekk foofu waay benn waay daal di koy jox fukk lu yonente bi jox mu jël jële ba di koy jaay ko yéen fi ne ko jaay la ko ba pare moom mu wax ci yàlla ni moom jaay ko yonente yonente bi ne ko jaay na ko mu ne ko jaay wala ko am sa seede moom wax la yonente ni yonente ne ko am sa seede yonent bi ne ko aw ma seede alayhi salaatu wasalaam waaye loolu ñu taxaw ci taxawaay bi ci la daal di wax moom Uzayfa ne man seede naa ko fekk naa ne yonent bi jënd na ko mu nekk moo taxawal parce que loolu yonent bi ci kanam def te dund na ko ndax jaay la wax mu ne ko jaay ma mu ne ko wax nañ ba déggoo mu ne ko jaay ma la ko